mënoo bàyyeekoo Bignona nara wutali Diouloulou te doo jaar pont Bayla ak pont Diouloulou pont yooyee nag te ji seen magataay doon na lu fës lool. pont Bayla mu doon pont bi nga xamante ni nag longooram nag mu ngi toll ci cent vingt mètres boobule pont nag nemmeeku nañ ni ki tey jii anam yi mu nekkee dalalu xel benn yoon naka noon itam pont Diouloulou mi nga xamante ne ñu ngi koy sànc ci atum 1959 te ji jaar ci yooyu le pont nag doon na li nga xamante ni risque la ci askan wi. pont bi man mi sa taxaw instant mi ni sa ragal na ko quoi sama xel du dal parce que gis nañ ko el gauche bi euh, parena na auto yi ñoy daanu pont mi ñu ko xam nga touti touti ki euh, euh, weñ yi commencé nañu dam te ci souf tamet c'est pas encore une fois lo xam da mëna dal na suñu xel quoi té camion yi sax duñu fi jaar sax goudi li musuma man musuma ko gis si Sénégal pom situation bu mel musuma ko gis fenn si Sénégal wax dëgg yalla fan dan fukki at bi légui ñu ngi waa ñu ngi koy défar depuis en 2000 ba léegi ñëw nañu def début bi ba léegi xool fii suuf dem nañu waaw ngir yàlla nañ ko defar ñu rek na nga dugg ci suuf pont bi bu camion di jaar après nga xool pont bi li muy def. ñàkk fu ñuy jaar moo tax it ji ñoom amuñu benn solution fu pont yooyee. gros porteurs yi ci bër yi nga xamante nag ca Gambie la ñuy bàyyeekoo ci ñaari pont yooyee la ñuy jaar ngir wutali Casamance wala sax dellu foofee ca Gambie dawalkatu woto yooyee nag ñu ngi wéy di laajte ana kañ la ñuy defar yooyu le pont. boo chargé poids fii pour yéeg sa problème la boo moytu sa laam yi mën ngaa dama sa laam foofu sax danger la bu mag danger bu mag parce que ak poids yi ñuy teg loolu dafa garaaw si ñun loolu jaay bakkan la sax mun nga yéeg bi ci digg bi rek mu pom bi en problème waa situation bi dafa garaw trop waaw amatuñu benn pexe pour contourner wala pour leen mais sino pom bi moom pour jaar foofu daal risque la daal waaw risque bu rëy la pour jaar si pont bi. temps rek mujj euh, am na benn surplace euh, bu bu yàq fi bu yàq fi yàggul noonu sax am benn surplace bu am problème fii si ngir ngir ngir bi. pont bay la moom anam yu mu nekkee daal doon na li nga xamante nag jéggi na dayoo. buñ sukkandikoo ci ñi nga xamante nag ñu ngi tase ak ñoom ci boobule pont ñu ngi xamal ni ki ay accident day faral di am ci boobu la bërëb ba. pont bay la bi moom suñu si jàppalee dina baax ndaxte pont bi yàgg na ba pare pont bi dafa tuuti te en plus ay risque la. parce que dañuy day yàpp ay tonnes di si tegu loolu su ñu si jàppalee daal dina baax ak bu jululum bi waaw ñun daal ñun chauffeur yi loolu mooy suñu problème pont bi boo xoolee même jakarta sax boo boo yeggee fi ni euh, doo wóolu pom bi quoi parce que pom bi baaxul. di fàttali ni ki ci tournée économique am ca Casamance président de la république jot na fasal ni que dana defar yooyu le pont waaye ba fu mu toll nii nag dara gisuñu ko. mu doon ay digle yi nga xamante nag faa ñu def seen kéemtulaay kattan ñu def ko laata jéeya di am ci yooyu le pont.